ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat ci jotaay bi ñu bokk muy jotaayu fatawa ngeen ci ànd seen mbokk Abdallah Sall mu féetewoo gaaral seeni laaj mu fegoo ceeg cheikhana docteur Mouhammad Ahmad mu féetewoo tontu seeni laaj tey di jotaayu ñaar muy deux cent vingt émission di ñaan suñu borom subxanahu wa ta'ala mu dolli ñoo defal tawfiq ñu yàgg koo ànd kon Cheikh xanaa dañ lay jox kàddu gi rek niñ ko baaxoo defee nga tijjil ñu jotaay bi soo noppee ñu jublu ci liggéey bi bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulilahi naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayiaati man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man fala haadiya lahu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 maanaam yax wu damm dañ koy jàng waaye suñ ko jàngee ba noppi nag dañ koy faral di di mocc mu ne la wax nag euh, moom gis nañ ñoo xam ne dañ ciy faj dañ koy mocc ba mu wér waaye nag lañuy wax xamu ko waaye nag du alxuraan du sunna waaye nag nit ñi xamee nañ leen loolu muy laajte lu mel noonu lan mooy àtteem ci lislaam alhamdulilah mocc day sax na ci shari'atul islaam yonent bi sallallahu alayhi waalihi wa def na ko gis nañu ko defit mu bàyyi leen ca saxal ko mocc gi dagan nag mooy gi nga xam ne daa jóge ci alquran wala mu jóge ci sunna wala bu fekkee ne dafa jóge ci kàllaama moo xam kàllaama ak arab la te mooy nga ca moo ci gën a jege alquran ak sunna ñi xam li ñuy wax lu mu doon suñ ko xamee it bokkaale bañ caa bokk yépp xeetu mocc goo xam ne turu yàlla lañ cay tudd ak wax ju baax joo xam ne ay ñaan la kàllaama gum mën a doon mocc googee mocc bu baax la nekkul charte rek ne faw mu jóge ci alquran ak sunna benn mu jóge ci alquran ak sunna nekk texte wala mu doon loo xam ne alquran ak sunna ci boppam ñoo ko permettre ñoo ko maye te lépp loo xam ne bokkaale jaxasoogu ca loolu alquran ak sunna maye na ko ci xeeti faju loolu lu ma ta xam la moo xam ne ñooñu ab dama dama la ñuy mocc wala ku leneen gaar loo xam ne dafa mat a mocc loolu yi mu wax ne ñooñee di faj damm-damm yi xamuñu lu ñuy wax waaye gis nañ ne dana am njariñ lu ma ta xam foofa it mooy def dara rek mu am njariñ dalul di firi ne loola dagan la waaye rek fa ca mën a fa ca mënee sayam mooy bu fekkee ne ñoom dañuy mocc te xamuñu ci ñoom ak bokkaale suñ xamul lu muy wax ndax déggunu ko it duñ ñëw ne leen waxal ca kaw ndax ñu xam li ngay wax lu mu doon déedéet da ngay wéy ci kaw rafet njort gi jàpp ne ginnaaw ab jullit la buy wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah di julli di woor te déggunu ko wala nu gis ko muy waxe bokkaale wala mu koy jëfee su boobaa dañuy jàpp rek ne lii muy wax ak bokkaale nekk ci ba keroog nu koy dégg suñ ko déggee rek ak bokkaale nekk ca su boobaa nu yemale ko foofu su fekkee sikki sàkk danoo dikkal itam ndax kii li muy wax okkaale war na cee nekk wala nekku ci su boobaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daa maa yaribuka laa yaribuk lépp loo xam ne yaa nga cay sikki sàkk teg ko fa suuf te dem ca la nga sikki sàkk wut paj mi ngay sikki sàkk naan kii ndax mën na ko li muy wax nii lu mu doon walla xaw wóoruma wala saam xel dalu ci boo ko fa bàyyee da nga gis keneen kuy faj koo xam ne la muy sam xel dana ca dal da nga am loola wóor wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi day laaj nee am na ay xeetu fas-fas ay xeetu téere daal yoo xam ne eh, ña koy def dañ naan fas-fas bii day mbaa téere sàngam bii day soo ko jigéen ju ko takk doo jël ëmb lay laaj ndax dagan na wala daganut alhamdulilah takk téere ci boppam day euh, dafa saxul ci chariatul islaam jàpp ñu ne it wax ne mën naa nekk mooy wax ji gën a dëgër ci masala moom yi bàyyi ko mooy la gën a jaaru moo gën a dëppoog jëfiinu nu bi sallallahu alayhi wa sallam akum jàngaleem su ko defee loola moom teg ko fi suuf rek moo jaaru amma ndax téere ba bu ko takkee dana tee mu ëmb ak dana tax mu ëmb loolu moom yàlla moo xam wallahu taala alam jazakumullahu xeyran ci tontu yu leer yooyu kii day laaj nee li ñuy tuddee luggu dangaru jaan nga xam ne am na ñoo xam ne am na mocc guñ koy mocc mu wàcc ci li ñuy waxe mu ne loolu ndax day dugg ci njabar wala déet alhamdulillah déedéet du lugg jaan gu nekk rek day dugg ci njabar saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain génn nañ benn bis romb genn gàdd mooy foo xam ne ay naara fa dal ak seen kilifa ñu ñëw doon fa wut ndax danañ fa mën a yendoom déet ñu ne leen déedéet fii kenn mënu fee yendu ñu dem ba sori leen dal seen dalu bopp saa boroom dogal kilifa waa gàdd googee jaan màtt ko ñu amul jaaxle na ah, jaay yàlla yi romboon fii de nan daw yëgal leen ko ba xam daañu ci am i pexem ndét biñ dikkee yëgal leen ko am ci koo xam ne moo delsi dikk daal di koy mocc mu ne ñokket mel koo xam ne dara dalu ko ñu daal di jël ak coggal jox ko ne ko lii lañ la faye bi mu dikkee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nettali ko ko mu ne ko loo ko mocce mu ne ko fatixatul kitaab mu ne ko kan moo la xamal ne ak mocc la kan moo la xamal ne ak mocc la maanaam ni nga def ba xam ko loola la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dëgëral noonu ne ko nim doone ak mocc waaye ginnaaw jotaguma la ko woon a jàngal foo ba xam ko kon fatihatul kitab ci boppam ak mocc la ku ko mocce dara moo xam ko jaan màtt la comme xissa boobu wala leneen mu wér kenn du wax mukk ne loolu ak njabar loolu bokkaale wala leneen kii mocc itam mocc ay baat yoo xam ne du baati alquran karim du baati xadis waaye ay baat yu baax la yoo xam ne bokkaale nekku sa mu mocc ko ca loola itam dara nekku ca moo xam wér na nag moo xam wérut waaye ala kulli xaal mocc ga dara du ca nekk la ñuy bañ daal mooy ak njabar wala ay baat yoo xam ne si baat yi ay eh, jinne lañ cay woo wala ay seytaane wala yu mel noonu loolu bokkaale lay daal di doon moom naam ahsana allahu ilaykum cheikhana soxna si day ñëwkat la ab téyër la nee na moom day liggéey ba noddukat bi noddu ci àjjuma comme moom du dem jàkka ja day jàpp ne moom mën na continuer di liggéey rek ba julli jot mu julli ñu laajte nag ndax day dugg ci tere gi yàlla tere lépp lu jëm ci yaxantu ak lu lay fàbbi ci julli àjjuma ji muy wasarul bay aja Ah, wa zarul bay ndax moom mi nga nekk ci palaasam te warut a dem jumaa da ciy duggam déet alhamdulillah sunu borom tabaraka wa taala ñoo xam ne yaa ayyuha amanu ida nuudiya lilsalaati min yowmi aljumuati fasaw ila dikrillahi wa darul bay yéen ñi gëm yàlla su fekkee ne woote nañ ca jullig àjjuma ga bàyyi leen la ngeen doon def te dem wuy tudd yàlla googee ñu tudd yàlla tudd yàlla ga mooy xutbab àjjuma ga ak julli ga loolu nag ay boroomi xam-xam yi settee nañ ci ñi nga xam ne àjjuma waru leen am ñooñu bu leen neexee ñu dem bu leen neexee ñu toog jigéen ca lañ ko boole doom jigéen la bu ko neexee bu ñuy dem di julli ji àjjuma mu toog bu waxtu julli jotee mu julli ci këram bu nekkee ci liggéeyu këram itam di ñaw wala muy bale këram wala muy fóot wala muy def dara kenn du ne ko bàyyi li nga doon def ginnaaw moom demul ca jàkka ja loolu sañ na ko waaye nag kuy comparer diggante dem gi ak ñàkk gee dem lu ci gën da gis na dem gi moo gën ci moom ndax zikrullahi boobu ñu fay def muy xot ba nga xam ne da ko war a déglu ji su demee toog déglu ko la mu ciy jële ci ay njëriñ bari jullik mbooloo ga it laa shakk ne moo ëpp tuyaaba jullik kenn loola ci kuy dàq la gën a baax te ëpp njariñ ëllëg moom day gis ne loolu moo gën toog di ñaw waaye bu fekkee daa loru ci ñaw ga nag mënta ñàkk a toog su boobaa nag day toog rek ndax dagan na ci moom mu toog bañ dem rawatina nag su fekkee ne yitte ja daa feddliku mel ne koo xam ne dafa jox aw nit ay dele yoo xam ne ci lañ war a jël si seen yére yi muy ñëw te yoo yi jege na bu fi jekkee di am yeneen yu muy defi mën naa tardé su ñëwee ay kàddoom des gannaaw su fekkee loola da caa nar am su boobaa dañuy wax ne même gën gi nga xam ne julli ji gënoon na ko sax su boobaa dañ koy xoolaat ko mën naa toog def ab ñawam bu waxtu julli wa jotee mu daal di julli julli tisbaaram wallahu taala alam athaabakum allahu cheikhana ay dara di wootee Passy nee na ndax euh, mën naa nekk nit ki sarax si mu war a génne euh, ci kawaru liir euh, gannaaw bam ko xaymaa ci or xaalis ndax sañ na ko génne ci CFA alhamdulilah mu kay ko xaymaa ci xaalis ba noppi day jéem a xaalis boobe ci màndaxe maanaam suñ ko pesé lu muy tollool ci xaalis bi ñuy jëfandikoo su ko defee mu sarxe loola ndax lu dul loolu rek lu ñu tudde xaraj mën na ci am maanaam boo pesé woon kawar gi mu toll ci sept grammes sept grammes nga soxlaa wut sept grammes ci xaalis wala ci or loolee lu jafe la te boo ko wutee ba am ko it lu muy jariñ ka koy sarax loola du neex a xam su ko defee la muy tolloon rek xaalis bi yi ñuy jëfandikoo ci marché bi su boobaa mooy gën ndax mooy ëppal njëriñ faqir bi nga xam ne moom nga koy sarax naam barakallahu fiikum cheikhana la Lamine dem di wootee kër Mamadou Fatima nee na imaam a ngi ci julli dafa jamaj waaye nag am ku dugg si ci julli gi waaye fekkewul jamaj googu kooka nga xam ne dañ koo raw te fekkewul jamat ji ndax day ànd imaam ci jamat ji su sujjóotee mu sujjóot moo xam qabla salaam la wala baada salaam mu dem mottali julleem ba yeggal soog soog koo sujjóot alhamdulillah ki ñuy tudde almasbuuq muy koo xam ne daa dikk fekk imaam mu rawe ko ab rakaa wala ay rakaa waaye bi muy tugg ci julli gi fekk na imaam moom jamo joon na bi mu daataan dugg defoon na njuum loo xam ne nar na ko sujootal mu ñëw kabar kabaru armal ànd ak imaam te fekkewul moom njuumte loolee imaam juum su fekkee imaam juumte loolee mu juum da ko war a sujootal qabla salaam maanaam daa war a sujoot ba noppi door a sëlmal su moom mii ñu raw dana sujoot ànd ak moom ndax képp ku dugg ci ak julli ak foo mën a fekk imaam imaam da lay conditionné lum def nga def ko su fekkoon soo fekkoon muy taaye sax da ngay daal di kabbar rek toog di taaye comme moom kon ginnaaw sëlmalagut julli gi lum def lu ne da koy def su fekkee ne daa sujjóot qabla salaam da ngay sujjóot qabla salaam bu sëlmalee nga jóg mottali sa julli bu fekkee njuumte li imaam def nag baada salaam la ko war a sujjóotal kooka moom yoonu kii ñu jiitu te fekkewu ko nekku ci su imaam xasee ne asalaamaaleykum wa rahmatullah rek moom day daal di jóg mottali ak julleem bu noppee sëlmal daal di dem yoonam du sujjóot baada salaam du ko sujjóot ànd ak imaam du ko sujjóot gannaaw bu sëlmalee ndax jamujul te fekkewul it fu ñuy jamuje loola moo tax ginnaaw imaam conditionné tu ko ba mu xasee ne salaamaaleykum moom la yeewe ko woon ci jullik imaam la ca des jullik boppama foofa sujjoot amatu fa bu muy sujjoot naam ahsanallahu ilaykum cheikhana soxna si nee na dafa bëggoon ay laay biir ndax kat xam na ni diine ci alquran ak sunna lañ koy tibbee xam na ni ab tamit lépp diinam foofii la ko war a jëlee ci loolu it la war a tënku waaye mu ne nag su fekkee ne yàlla daf laa nattoo jëkkër joo xam ne eh, tegeegul ci yoon woowu eh, amaana ñàkk a xama tax mu di di la ca sonal di la sonal ci yoon woowu yi nga bëgg aw eh, di la ca fitnaal mu ne ku mel noonu euh, yenn orientation nga koy jox alhamdulilah ku mel noonu de orientation yi koy jox du weesu sant yàlla ko war moom mi ko gindi ba mu jàpp ci alquran ak sunna doonte day dund ak koo xam ne kilifa la ci moom te kooka loolu yi ko yàlla may moom mayagu ko ko la ci jiitu rek mooy na muñ muñ gu dëgër boole ko dëgër ca lam nekk nag xam ne mbirum diine la digganteem ak boroomam la maslaak doom aadama wala bëgg ngërëmul doom aadama lu tax ñi wàññi dara ci li nga xam ne moom la yàlla santaane la ca des nag mooy fexe ba rataxal digganteem ak boroom këram boobu yi bañ a dugg ci ay xuloo ak i werante mbiccoo mbàlloo fexe ba yërëm ko di ko laaye biir di ko ñaanal itam sa digganteeg sa borom boo julee say rakka ba nopp nga ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu génn ko teg ko ci siraatul mustaqim ndax ngeen mën a bokk dund dund ko xam ne gu neex la loolu rekk mooy li ci war bañ ko ko jàppe bañ a jàpp ne moom mii daa bëgg lu bon moo tax mu féddigéewu nanguwut alquran ak na waaye dafa jàpp ne lam nekk noonu la su ko defee kooku laaya ko biir ak ñaanal ko mooy la ci jiitu boole ko kon ko jikko rafet na yoo xam ne dana ko xemmem loo alquran ak sunna su ko defee ku mel noonu ku ngeen continuer ci lu mel noonu borom bi tabaraka wa taala mën na ko baaxee mu dem ba jëmmi jamono loolee mu nekk mu bàyyi ko dellu ci gannaaw naam jazakumullahu xayran cheikhana kii day laaj nee na lan mooy àttee azlu azlu te mooy euh, góor akramakumullah góor di sëyëg soxnaam dem ba dara desul lu dul euh, ndox mu génn mu génne ko ca biti mu ne loolu luy àtteem ci lislaam alhamdulilah al aslu benn moyen la rek ci yi ñuy jëfandikoo di te ëmb am mooy yooyu nag euh, daanaka amuñu àtte ñoom li ñuy xool mooy lay tax muy def ay pexe ngir bañ a ëmb lu mu doon ndax loola lu dagan la wala lu daganut su fekkee luy dellu ci quoi wàllu santé nga xam ne médecin yu xarañ te maandu ñoo xool ba gis ne moom mii ay ëmbam warta jege walla ñu gis ne sax waratul ëmb su boobaa lañu saxal ñoom bu boobaa charia da koy nangu suñ xasee nangu nag ne moom mii kon fii juróomi at waru fee ëmb ci misaal yan pexe lay def nag ba bañ ëmb loola moom ci tànneefam lay dellu ñii dañuy jël ay doom ñii di jëfandikoo azl boobu mu wax am ñuy def yeneen ak yoo xam ne defuñu loo xam ne daal lu charia di tere la euh, jàppal ne moyen ba amu ca solo waaye la tax muy bañ am ëmb foofu la atte bi di nekk wallahu taala allahu ilaykum cheikhana soxna si nee nañu borom këram dafa euh, jiitu dafa génn àdduna mu bàyyee ay doom mais gannaaw ñaari at am geneen góor ju ñëw di ko labat bu ko labatee nag mu ne am ci ay kilifaam ñu wax ni duñ ko mën a may duñ ko mën a maye lu dul mu jël ay doomam delloo leen mbokki baay mbokki euh, mbokki borom këram gi nga xam ne dafa wàññeeku maanaam euh, doom yi daal nañ dellu ci seen kër baay ci waxin suñ ko deful su ko deful duñ ko mën a maye mu ne loolu nag dafa am lenn ci ay kilifaam yu ko wax lu mel ni ay baytaxam waaye nag am na leneen ci ay kilifaam lu mel ni ay frère am ñoo xam ne moom d'accorduñ ci loolu maanaam pare nañ koo maye su fekkee ne waa ji ñëw na mooy ki koy bëgg nii muy laajte nag ci lu mel nii nuñ ko war a doxale alhamdulilah xam naa bu fekkee ne ki génn àdduna ay a fi nekk wala ay magam moo xam ne ñooñu ñooy bàyyi taxi xale bi ñooñu moom ñoo am priorité ci maye ko ci chariatul islam it dagan na ki war a maye nit mu teg ab charte bu fekkee charte boobee bu jaadu la ci sharia charte boobu yi teg buñ ko seetloo bu jaadu la mooy xale bi doom yim jur ñu yóbbu leen ci seen kër baay yar leen foofa ku ci dul koo xam ne ku ndaw la kuy nàmp wala koo xam ne ku xàmmeegul la kooku jaaduwul ñu koy tàqaleeg ndeyam waaye ña nga xam ne ñu fennaliku la ba mata yóbbu daara wala sorewuñu ak loola ñooñu ñu féeteeg seen geño mu gën a jaadu jigéen ji dem di sëyi di leen yóbbaale fa muy sëyi ndax lu bari ci góor ñi it nag su jigéen dikkee indaale ay doom Euh, la ca jaaru duñ ko ca def ñooña foofa la ñuy xooli moo tax ñu wax lu mel ne loolee ñu wax ala kulli xaal loolu moom mooy côté charia bi leneen li ci des nag mooy ñi bokk waxtaan maanaam ñooñu nga xam ne ñooy ay frère ak seen bàyyi tax yooyu sooy boo rek ñu bokk waxtaan ba juboo ci dara luñ ca juboo te gis ne maslaam gone yu ndaw ndawaan yooyu ci la jëm rek sooy boo ñu jëfe loola naam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi nee na dafa am ay produit yoo xam ne euh, dañ lañ koy defaree da caa bokk ay mbir yoo xam ne ci mbaam xuux lañ ko jëlee léeg-léeg day rax ca produit yooya lu mel ni lipolève mbaa lu mel ni yenn Euh, garab yi euh, emballage ba mel ni teramycine emballage yu mel noonu léeg-léeg dañ koy defaree loo xam ne dafay bàyyikoo ci mbaam xuux mbaa sax léeg-léeg yenn diw yi euh, am na sax nee na ay reportage yuñ ci def yoo xam ne day firndeel ni am na lu ñuy jëlee ci mbaam xuux di ko dugal ci yenn produit yi li ñuy laaj nag mooy produit yooyu su fekkee ne sax na ni loola da caa nekk lan mooy àttee ci jëfandikoo ko alhamdulilah la mata jëkk a xool mooy ndax wóor na ne loolu yi ñu wax ne jóge na ci mbaam xuux dugg na ci produit bi wala déet ndax société yi nga xam ne dañuy xeexante gis ne société bi daa bokk bële li ñuy liggéey wala mu jege te jàpp na ne da koy xañ ay client ñooñu pexe yuñ mën a def ci ay reportage ak yu nuroog yooyu luy wane ne produit sàngam yooyu mbaam xuux nga ci wala sàngara nga ci alcool wala yu mel noonu danañ ko di def ngir xëñ société boobee ay clients yi nga xam ne ay jullit lañ su ko defee loolu la ci jiitu rek mooy gëstu ko ba mu wóor ne lu am la su amee ba noppi nag ñu xam ne mbaam xuux ak yu demee ne moom li ñu xaraamal mooy lekk ko kon loolee ci jóge bu fekkee ne ci yàppam la jóge wala ci garisam wala li nuroog yooyu ñu def ko ci médicament boo xam ne des koo war a naan su boobaa ab jullit moom du dagan mu di ko naan bu dee siro it nekk noonu maanaam du ko dugal ci biiram daal ala xaal loolu moom waroom xam-xam yi nañ ci mu des nag loo xam ne ci kaw yaram bi lay nekk comme lu ñuy diwoo ak lu deme noonu moo xam ci kawar lañ koy diw wala ci aw yaram su boobaa kàddu yi borom xam-xam yi nekk ci benn waaye li gën a dëgër nag mooy yàlla moom lekk yàpp mbaam foofu loolu la xaraamal yàppoo nag buñ ko kii garees ga da cay duggaale waaye nag yeneen buñ koy jëfandikoo fu mu mën a doon ci kaw yaram fañ ko doon tere mooy mu wóor ne sobe la bu fekkee sobe la moom jullit bi sañu ko jël di ko diw ci aw yaram wala ci kawaram waaye li ma tax xam mooy du caagi ni lu xaraam la ne sobe la dëgg la lu sobewu lu moom xaraam nañu dugal ko ci biir waaye dara mën naa xaraam nag te fekk du sobe moo tax sàngara ci boppam du sobe comme tuur woon ci say sër mën ngaa dem julli ndax liñ araamal mooy naan ko liñ jàppit mooy yàpp mbaam xoox du sobe waaye lekk ko moo xaraam borom bi tabaraka wa taala nee na xurrimat aleykum ummahatukum ila axiri l aaya na ci yéen seeni yaay te coogin xaraam boobu ñu araam kon yaay yi dañu daan nekk sobe déedéet xaraamal ak sobe bokkut kon euh, jëmmi loolu yi nga xam dañ ko cee defar di ko ma mënee su koo xaraamal moo xam ci yaram lañ ko def wala ci bopp ku ko wattandiku nag bàyyi ko loola moom moo gën a sell moo gën a wóor ci wàllu diine waaye ubbee nag ne dafa xaraam loola moom wax dëgg yàlla doonut loo xam ne lu yomb la wallahu alam barakallahu fikum cheikhana mbokk mi nee na déglu na euh, fatwa yi nga xam ne cheikhana def nga ko ci luy aju ci julli ci bërëb boo xam ne bàmmeel dafa nekk mu ne nag moom seen dëkk fam dëkk euh, julli iid dañ koy toxal di ko yóbbu ci julleekaay ba julleekaay ba nag bërëb la boo xam ne dafa jàkkaarloog armeel yi maanaam armeel yi dafa nekk ci penku bi jullekaay bi nekk ci sow te nee na li ko ci jaaxal mooy diggante jullekaay bi ak armeel yi miir doxu fa maanaam miir clôturé wuñ ko kuy julli daal da ngay jublu directement ci euh, li nga xam ne mooy sëg ya waaw dañoo dende mu ne nag lu mel noonu ndax dagan na nit julli fa wala déet alhamdulilah loolu yi ñu def day julli it ñu génne ko dëkk bi yóbbu ko ci jetti ja loola moom mm, lu sharia soññee la moo gën a dëppoo ak sunna waaye nag di julli jàkkaarloog armeel yi nag te dara doxul ci seen diggante ñu doon sab xibla loola it luñ tere la laa tajlisu ala alquburi wala tusallu ilayha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy julli jaamaarloo jàkkaarloo ak xabru boo xam ne dara doxul seen diggante ñoom su fekkee dañoo bëgg a ñoŋal seen jullikaay boobu ba mu mën a mucc ci loo xam ne julli ci ay xabru da cay am nañu yëkkati benn collecteur boo xam ne day dox diggante jullikaay bi ak armeel ya suñ collecteur woon armeel ya rek ba mu am buntam ñu di ko tëj seen dañu daal di mucc ci loolu su fekkee lott nañ ci bu mënuñu ko am nag jàpp naa ne ñu ci mën a defar ab ñàkk boo xam ne dañuy samp ay bant yu dëgër buñ noppee wut taxas walla sax ñu sàkket ga def ko mu doon aw sàkket woo xam ne day dox seen diggante ak armeel yi ñu mën a garder seen jullikaay boo xam ne duñ julli di jëm ci ay bàmmeel wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana soxna si day laaj nee na daal lu toll ci ñaar fukki at a nii boroom këram dafa aada woo aada joo xam ne moom day da koy metti ndax daal lim aada woo mooy day toog di seetaan télé ba ca xaaju guddi nee na léeg-léeg mu ñëw yee ko ngir ànd ak moom mu ne léeg-léeg mu nangul ko waaye léeg-léeg day mer ba euh, da koy xañ boppam ndax daal jëf jooju léeg-léeg fi muy toll ci moom muy sàkk ay laaye biir ak ay orientation ci loolu alhamdulilah toog di seetaan télé day sa soxna di la xaar ba nelaw nga ñëw di ko yee nekk na loo xam ne lu jaaduwut la la muy wone rek mooy kër gi dunduñu ci na nga xam ne mooy dundiin wi gën a jaadu ko diggante ñaari way dencante yi su fekkee ni mu war a neexe la neexe waxtaan yi war di dox seen diggante di dox seen diggante weccentey xalaat bokk li ñuy dund di ko bokk di ko yëg muy seeni bànneex muy seeni naqar ñu di ko waxtaane saa bu ñu wàccee jóge ci liggéey waxtaane seenu njaboot ak niñ leen bëgg a yareek seen kër ak niñ koy doxaleek àdduna bi li fiy dox ak mel noonu ñaar ñi nga xam ne barrage doxul seen diggante te nekk ñaari way dencante di dund ni nga xam ne noonu la ko lislaam bëgge daanaka jotu toog sax di seetaan ab télé day xaw a manqué ci seen waxtu kon nag lii njëkkëram ji dund day wane ne seen diggante melul ni mu war a mel rawatin nag li soxna si wax ndax bu fekkee ne ñaar fukki at yàlla ñi ngi dund lu mel noona kon moom day mel ne loolu dem na ba nekk habitude boo xam ne xas nañ ko tàmm moom it day mel ne eh, jaratut mu di ci sonn ndax bu fekkee ne bàyyi na ko muy dund loolu ñaar fukki at yàlla yu mat sëkk ñuy dund ca loola jàpp naa ne saafara ko moom la xaw a jafe lay doon li ëpp solo daal fi mu nekk nii bu dee dañ ko bëgg a saafara mooy ñu xool sabab si lan moo tax ku góor ki di bàyyi borom këram di toog di seetaanub teleem mu di ko xaar ba dem tëri ba nelaw lu tax ndax dafa dellu ci ndaw si ci boppam wala daa dellu ci waa ji wala daa dellu ci ñoom ñaar ñëpp suñ bokkee toog waxtaane loolu jéem koo gëstu dem koo seet kenn ku nekk bañ a nax sa bopp xool li ngay dund ndax noona la am déet soxna si bu fekkee wóor na ko ne moom mi mooy dund dundiin woo xam ne xëccul boroom këram mu jëm ci boppam mu soppi aw dundiinam yi ma def noo xam ne bu ko defee xelum borom këram dana nekk ci ci moom te bañ a doon loo xam ne rek ñàkk pexe lay doon ak euh, defe na rek lii daanaka say boobu di ko doxalee nu la neex euh, ci kaw rek na daa doon luñ santaane loo xam ne mënee su koo bàyyi kon na koy bu rek di def nii déedéet war ta nekk noonu war naa diggante bi war naa gën loola kon na jéem a defarwaat na jéem a xoolaat boppam xool aw doxalinam xool ay jikkoom xool ay tontam su ko defee ku góor kayit jéem a góorgóorlu xool boppam te ragal yàlla te xam ne njabootam la euh, ñu bokk toog waxtaan ñoom ñaar soppi aw dund yi waaw alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi kon ñu ngi dellu sant suñ borom subhanahu wa taala ci ay yombalam ak i xéewalam mel na ni yegsi nañu fi ñu baaxoo yëkkatee suñu jotaay di ñaanal cheikhana docteur yàlla na ko yàlla sàmm dolli ko tawfiq barkeel yéen ay yëngatoom waaye di sant it auditeur ak auditrice su Kepar ci e, topp gi ak ànd gi yal na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko di sant bu baax a baax waa rajo bi tàmbale ko ci directeur bi ba ci technicien yeeg ñëpp rek yal na yàlla ñoom it defal leen tawfiq di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm def ko ci mboole seen réewu jullit ñi kon Cheikhana niñ ko baaxoo defee dañ lay jox kàddu gu mujj gi rek nga tëjal ñu jotaay bi ñu dig mbokk yi daje incha allahu ajuma jii di ñëw ci seen beneen jotaayu fatawa allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa alihi wa sahbihi ñaan te ful te yaatal ko ba bépp jullit xaj ci kon rek ñu daal di tàggoo foofu di ñaan borom bi tabaraka wa taala ñu tawfiix ba ci jotaay bale di ñëw ñu fekkee ko tal di leen tàggu di tàggu mboolem déglukat yi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh